What was this for? a à Modou Anta école Lille Balla Gaye Arafa sokkaas na Modou takk lewto bi taxawaat demee nañ wér ñoom ñaar ay tondo Modou Anta ba door na ko Anta looy def na wóor Arafa looy def na wóor ñaari xale ya nga xamante ni lamb dañu di bàyyi xel dër na ko Modou Anta jël na ko tànn ko waaw waaw tànn na ko tànn ko Anta ja tànn jëlal ma Anta jël na ko tànn ko vite fait bien fait Kalidou arbitre bi yàq suñu jël bi moo teg suñu jël bi arbitre bi yàq na suñu jël bi eh, arbitre di leen toog waaye lu mën am mbokk yi mooy à la fois da doon dóor Anta daal di jël dëpp ko naax daal ko jël bu rëy turandoo jee noonu nee na ka mbër la noonu nee na ka mbër noonu naka lamba bàyyi xel Kalidou jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey ñu teew fii Géejawaay Ada Dial Mbaye ah. ñu teew fii ñu teew fii Géejawaay Ada Dial Mbaye jël si fii benn champion boo xam ne bëre woon na démb journée fàllu Ndiaye le 2 octobre yaakaar naa ne ñoom ñoo ubbi saison bi jeex jàmm moo bëri woon grand combat bi ak Ibou Afia combat spécial bi booy Diop numéro 2 ak Sita bu anti moom mii moo bëri woon septième combat bi muy Modou Anta sans frontière numéro de ñu koy félicité di encouragé adversaire am Ada Fass di masawu aussi tamit supporteru jeex jaam ñi nga xamante bi ne amoon nañ ay blessures yëpp ci stade ba wax dëgg yàlla yaakaar naa ne kenn rek moo fa damm mais ñeneen ñi ci des dañu gaañu ñëpp sax génn nañ ba mu des kenn ki nga xamante moo am blessure bi. am na nañ information boobu di encouragé Ibou Afia wax dëgg yàlla moom sportif dëgg dëgg dëgg dëgg la mbër la boo xamante bi nii bu daanee bu daanoo day jóg félicité adversaire am encouragé ko dem ñu ngi koy félicité bu baax moom Ibou Afia ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lañ kenn démérité wu ci di félicité booy Diop 2 di encouragé Siteu bu anti ak mboolem ñu fa bëre woon ñu jël ci Modou Anta nag fas yéene waxtaanee ak moom ginnaaw bi mu signé troisième victoire am ñu fas yéene waxtaan ak moom lu nekk si kanamam ak ay adversaire am ak ñu ko jàppale si combat bi ak nan la génne ci combat bi maa lay bu baax a baax di la bëgg. Tama maa lay delloo bu baax di dolli sant yàlla bu baax di sama ñaari waajur bu baax di sant sama waa koñ gi nga sonn nañ bi di sant képp ci jàpp ci bi rek maa ngi lay sant di gërëm waaw nuyu naa ñëpp. nan nga waajee combat bi. combat bi xanaa liggéey rek toog suñu koy rek di liggéey. ak suñu waa école ak samay course ñu liggéey lu jaar yoon moo tax ñu ñëw def résultat. dañu mhm. seetlu ne sa combat bi passé le 6 août yow ak Roubé ci nga ëppoon état ka dernier combat bi lan moo xew si diggante bi. bi combat bi liggéey rek moo metti dañoo liggéey rek ndax combat bii nii solo ñu si woon 10 lañ si soxla woon quoi déplacement yeeg yooyu noonu loolu lañ si soxla woon. Mhm, soxla ñu woon fu 10. Mhm. ñaata séance nga doon def. 3 séances ñu doon def. yenn saa ba 4 séances. Mm-hmm. lañ doon def par jour. Mm-hmm. lan moo waral ay trois séances yooyu ay quatre. ah bëgg dara rek xam nga nit moom soo bëggee dara faa nga def dara. Mm-hmm. loolu kese la. ku ñoo bëggoon dara. te ñoo nekk xale nekk si yoon it. loolu moo tax ñu koy def. démb yaakaar naa bokk nga ci mbër yi jiitu ci stade bi te fi nga dëkk sori na lool géejawaay nan nga def ba teel a ñëw. ah a pare rek teel a pare waaj waaj ñu daan waajee ñun moom bëgg nañ chaque jour stade ñuy teel a dem waaw bëgguñu sonal kenn si dara bëgg nañu teel a ñëw def li ñuy def dem ñibbi waaw. sa adversaire yaa ko njëkk a dugg ci stade bi moo mujjee dugg si bi nga dugg see nan nga ko gisee. Ah, nu ma ko gisee macha allah nu ma ko gisee macha laa gisee ñëw na liggéey na xëy na suñu borom moo ndam te moom may ndam def defuma ma ko li nga xamante ni war na maa mën a may ndam moo tax rek. loolu kese la. c'est la première fois nga gis ko wala mas nga ko gis. c'est la première fois ma gis ko. ok. Mhm. bi nga ko gisee lan nga gis. non gisuma dara. ak mbërëng ci moom. waaw ak mbërëng ci moom moom champion la. champion la moom daanaan la. Mhm. ki ko ñaanal sama tey combat suñu borom defal ko ndam. Mhm. ñu ñëwaat si combat bi bala ngaa ñëw ni nga ko daane. def nga erreur ci làmb ji wala defoo erreur. def naa erreur sama première song def naa erreur. dama bëggoon ñëw song rek mu jeex ma xam ne loolu. baaxul si laa taxawaatee. après ma songaat ko làmb ji jeex. ok làmb ji jeex facilité combat boobu loo entraîné la loo waajal la ba ba mu yombe noonu. waaw waaj nañ ko entraîné nañ ko kii di Sa ak Thiatou Daouda Fall ay ñoom Lamine Golo Balla ñoom ñëpp jàpp nañ si. Sa Thiès Sa Thiès waaw. la wax. Sa moom jox nu ma ko daane. ah moo la jox kële. moo jox kële moom Thiatou Daouda Fall nu daane. waaw. liggéey nañ si liggéey yu mhm. waaw moo tax ba ñoo ñëw rek combat bi yomb. Mhm. ñu jàll si leneen mhm. macha allah signé nga sa troisième victoire sa premier combat nga daan Pape Bollé numéro 2 deuxième combat nga daan Roubé troisième combat daan nga Ada fan nga jëm. sëñ maa ngi doon wax naan jeex jàmm ak iwu aaf soxla jeex jàmm wàcceel bi nag. ah ñun da laa soxla. mais yow nga am jeex jàmm 6 combats la. waaw ah, loolu gis dara iwu bëri la rek bëri la rek. waaw ah, làmb moom mooy noonu moo dëkkee noonu. est-ce que est say morom la. ah làmb bu morom rek. Hmm. Ah. ndax gis nañ kii nii nu mu téeri sax euh, Ada Fass jëli kii nii nu mu téeri Zarko eh, mais Ada nag daa am coow waaw ñu ni gañoo na ko lépp ñu ni gañoo am coow jamono ji gañoo am coow <laughs> macha allah bu dul jeex jàmm Ibou Afia ñan nga gis ñoo xam ne war ngeen a bëri say adversaire potentiel lan dèjà moom am nga combat ma wax la ko la 15 janvier ci Zarko Ada Fass war nga cee bëri waaw xanaa toogaat rek gi liggéeyaat suñu rukk gi waaj niñ daan waajee gi ñaan yàlla si kàttanu borom bi bis boobu ñu maay ñu si ndam lu sedd guy ndam lu gaaw. Mhm. loolu lañ si bëgg. Mhm. incha allah mais gisoo beneen adversaire. instant bii nii. Mhm. ah wala booy Diop ñoom may ñu chance rek. <laughs> kooku day dammé de. booy Diop nañu may chance rek. alhamdulilah kooku laal. non nañu may chance rek. Mm. man instant yii poson laa bëgg. Diop de waaw. booy Diop de bari na ñu man ci làmb ji de. ah na ñëw ñu essayé ñu xool. Mm. waaw. billaahi. ok billaahi macha allah am na solo mbokk yi dañ koy jaajëfalaat bu baax El Hadj Dior El Hadj Dior kaay yow mbokk noonu la demee yaakaar naa ne comme ni ñu koy waxee chaque jour gars yi nañ am esprit sportif wax dëgg yàlla comme dafa ma tuddee boppam mënuma si dara moom it mënu si dara loo xamante bi nii jiitu na suñu judd la ñu jàpp ne làmb la quoi ñu bañ koo gisee beneen côté boo xamante bi nii dafa négatif ñu jàpp ne lu positif la wax dëgg yàlla lool rek lañ si a am quoi ñu koy félicité di encouragé adversaire am aussi tamit ki nga xam ne mooy Ada Fass numéro 2. Lat Dior Lat Dior doo ñaaj nii ma am lu ma la laaj tuuti jege si ma doo ma jege si ngay daw nii <laughs> wiiril nee rek wiiril demal loolu dina baax. macha allah kon noonu la demee bàyyi leen ko mu taxaw noonu rek mbokk yi noonu la demee Lat Dior. foo ne maa lay ziar maa lay delloo ziar wér. sëgal yaa si jàmm sa woon. maa ngi si jàmm waaw. naka waar. lu gars wax après sa combat ak ak bi Zëm. après sama combat ak Zëm mënu ma am combat yaa ngi gis. adversaire yow ñaata combat nga ma jox mu yàqu. ah mais ci yow la wala ci ñan la. du ci man la rek. Hmm. waaw dañuy tànn. ok mais na lu naa yaa ruux de. non koo xamul. ii daan naan la Boy Sine. kenn xamu ko. ndax xam mënoo daan mënoo daan kan. zëm zëm di jël booy siin mënul nekk. ok waaw loolu la rek. léegi ñan nga gis pour bëre ñoom. man ñi ma gis. Hmm. ñu ma gis làmb ji instant bii nii. du ma tëkku kenn du ma tëkku kenn damay nekk sama yoon rek. Hmm. waaw du ma laaj kenn. yow Petit Niang du combat. Petit dafa daw. ñi ma Petit moom du la daw. dafa dafa daw. Petit Niang Maam Mor bu Faas dafa daw noonu la demee. ak kanaat ñoom ñëpp seet ci leen leen damaa toog na instant bi jënd galaas toog. Hmm. waaw Batista man deux. Batista mu mag mii ñuy wax nii ñëw na dafa daw numéro un wala dafa jënd galaas. déedéet numéro un wala deux. numéro deux. si deux dafa dof de. waaw kay échange bi nag yaa ma gën a xam. Hmm. nañ toog xaar rek. ñii ñëpp pare nga pour bëree ñoom. pare naa pour bëree ñoom ñëpp man xale laa damay liggéey rek. mooy sama métier. waaw di béggee tamit sama mbër mi. waaw di ko wax lu mu gën a liggéey doyut lu yombul quoi. da bëgg na ko sax chaque jour mi ngi si. Hmm. war na Serigne Bamba yow danga may laaj man la sa waay moom bu dee wàllum entraînement bu si tiit. Hmm. chaque jour dañuy déggante ma lay wax ni booy bi moom. du lum toog. day day liggéey guddeeg bëccëg mu gis la mu ñàkk laa day nekk si li mu war nekk moo tax bu demee géew day yomb dañuy wax ni ñi muy bëreel moo leen mën a tax liggéey moo moo moo koy fay foofu mu yomb bu méttee si école day neex si arène ba waaw di ko ñaanal jàmm di ko wax victoire bi yàlla na ko jëkk ay yeneen ndam ndam topp ci ñoom séeréel ñi am combat yàlla may leen ndam waaw la béggee tamit bu baax di wax mbëri nag nañ ñëw ñu bëre ñooy mayante xaalis Mamadou Fass na ñëw ñu bëre dimbali ma nga génneel ma lii Mamour Faat ragal la nañoo ñu bëre waaw ma ko sens jaajëf mi ngi noonu mbokk yi noonu la demee ñi ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy waa ëttu lamb ji la diaspora Fata maa lay siyaare bu baax xam naa di ma kaañooti eh, grand coach Laay maa ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu ko ci mel ni Sëñ Baara wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima Kanté Tarkinda ñoom Serigne Ndour ñu ngi leen di siyaare Kanji production Sa Touba Sëñ Samba Ndour ñu ngi leen di béggee bu baax a baax Sëñ Fallou Maraxib Mara Laurent Ndiago ñu ngi koy siyaare Diagne efficace ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax Mansour Ba yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee mboolem koo xam ne jàppale na ci Modou Anta ci combat bi moo xam mu ñaanal ko moo xam lu mu mën di doon rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu bàyyi la nga tàggoo. waaw ah, ginnaaw bu ñu santaatee yàlla rek di julli si nante bi di sant suñu ñaari waajur gi sant sama waa koñ sonn nañ si combat bi sonn nañ si bu baax waa pa paaw koñ bi sonn nañ ci bu baax taxaw bi ñu ci def moom maire koñ beeg ñëpp sant naa leen ay Lamine Dieng ñëpp daal Pa ab Ablaye Diallo ay Baba jaw ñëpp sant naa leen daal ñëpp jàpp nañ ci combat bi ay Thiam production ñëpp daal su ma limee may juum daal nuyu naa ñëpp man Baba Diaw waaw Baba Diaw waaw. Ah, jàpp si combat jàpp na si combat bi waaw. Baba Diaw jàpp na si combat ah, sama ah, frère la waaw. Baba Diaw waaw. di ñaan Balla Toura combat bii nii la seet bi borom defal ko ndam. la am de Mama Lamine 2. ah ngay xaar ba mu bëri doole problème day xaar ba mu bëri doole. billaahi ak le 8 janvier séeréer borom may ko kattan ba jour boobu noonu mu defal ko ndam lu sedd guy. Hmm. si kattan borom bi. nga xaw kuul nag foog ngay tàngal mbër du yaru de <laughs> ah <laughs> man nii laa mel. Ah. nii waaw. jaajëf jaajëf mbokk yaakaar naa ne lii moo doonoon jotaay bi ñu ngi koy féliciter bu baax a baax di encourager adversaire am Balla 3 moom xam naa ne après dinañ ko jël si day laqatu nag Mama mi numéro 2 la am le 16 octobre jour boobu Ibrahima Kajoor production moo woo.